sëñ Tuubaa moo njëkk wone boppam digganteem ak yàlla dala ni yàllaahu moo njëkk a wone boppam tamit digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa dala ni alal muhammadi ba mu defee mission ci yàlla ak ci ci yonent bi sallallahu na la mu jëlee ci yàlla xaada ilaaya maalam yukkun ni wala yukkun abadan li mumkin jëlee na ci yàlla lo xamne yàlla dootu ko may ku mu bind mu delu ci yent bi sallallahu alayhi wasallam tamit ne hada rasulillahi ma lam yakun wala yakun abadan mumkin bi mu joge ci yonent bi yonent mi may nako lo xamne ne dootu ko may ken mu wote nak ne amarani rabbi bi an ushari'a bi anani malazun wahiman wa mafzahu jëma instruit donc waxul ne man ma bind dafa ne jëma instruit de proclamer que je suis l'asile je suis le refuge et je suis le sauveur de l'humanité Wote nak nag bo boo sa nafsin bi la daré de dafa ne ku ñëw ci man dina la jëriñ duma soxla dara ci yow té dina dina dina dina la bon koku jarna magal. té lolu amé wu ko ci ay wérd amé wu ko ci ay wax yu daf ko ci ay nattu daf ba mu ko jëndee nag ba noppi dafa am loo xam ne moom la wax muy ñun taalibe yi wala niya labraaru fi uqraaya wan xaadili bilanti an xiraaya mu ne labraar yi képp koo xam ne moom ñëw nga uyu si ko sëñ Tuubaa boole na ci labraar yi nga xam ne rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ñoom la àndaloon wan xaadali te dina leen wommat bilanti an xiraaya dina leen wommat ba keroog yomal xiyaam dugal leen àjjana kon koku magalam moom la ñu ñëw di représenter le président de la république and ak une forte délégation bo xamné madame le ministre d'État ngi ni ak ñeneen ño xamné ñi ngi wara ñëw ngir woné né Serigne Touba kenn la Serigne Touba amul morom. inauguration bi ak médiation bo yoy mo war serigne muntaha day woné rek né Serigne Touba mo yoré lépp lépp ci Serigne Touba la waaw Serigne Touba moy moy serigne muntaha tay ji

سفر